you want. Assalamualaikum chers ñëpp ce pays orus routes Babacar si chers naa leen ñëpp eh mon frère Lange Bernard yang si jam chers naa leen Bugatti Ibrahim chers naa leen yéen ku si fancy ngobok fancy ci fan si nga bokk fan si fancy nu la dara ëppaleew nu la dara fan si fi chaque instant Because seetaanoon doo chaque instant nga commenté ba pare nag sa ëppalee commentaire fan si yow lu ngay commenté fan sa ñoom duñ ko commenté ñoom dañuy toog di dalal si ar Salam salam salam salam salam gay char len ye ñep ku si nek ci touro mak santam di len jox waccu way di naan dal leen dara do jamm am jamm ci barke sayidina Muhammad fasiyene tambale waxtan bi ci bismillahir rahmanir rahim pare ko ci alhamdulillahi rabbil alamin comme ñu koy defee sa su nek naan len eh, mono Sénégal e merveilleux de Sénégal e formidable mon Sénégal est un pays où que comment je comme je vous dirais? en fait fenni, c'est la population qui apprend même aux gens à mentir fenni, ni population bi moom koy population bi ci pousse nit parce que population fen kat population la population bu meuna dul way oh onzu billahi jam yàlla na yalla wa wañil du meuna sax mu dindi parce que xamna ni que dindi ba mu set dina xawa doy war mais yàlla na yalla jappalé xam nga wañil nu quoi wañil nu ketat ko peti ko peti ba mu dess touti sax mu tané ni meuna a ak yoy gaay tay ngi di yuuxu nenen du ni ut échappatoire pour sen ki bi sen petit marabu yon bi quoi le petit bas booy bas booy bas la gars yi di utal échappatoire quoi gars yi nee ne noonu man balaa maa dee nag temps yi nii sonn naa lool gars yi nee ne ma la yónnee extrait wu fu Pape Alé Niang waxee ni que gisul turu sëñ bi non jot na vidéo boobu noonu cent quarante cinq mille fois quoi gars yi léegi waaw Baye Fall ah ana say preuve waaw da eh eh eh eh sama gars yi leen suyu sedd yi seen dal leen xool yi te ngeen toog yéen sëñ bi moom xanaa amul gémmiñ en tant que porte parole waxkat waxkatu tuutoon tarix waxkatu tarix bi yëpp koo xam ne que sëñ bi sax moom su heure wax jotee du wax moom mooy wax léegi moom fan la gémmiñoom jaar xanaa amul gémmiñ léegi yéen yéen a koy tontul yéen a koy fenal yéen a koy utal lay Pape moom lu muy wax loolu la concerné Pape Alé moom moo wax moo andi preuve Pape Alé Pape Alé hmm. on connaît tout c'est que le Sénégal est un boo xam ne ni que soo fa nekkee sa bëgg a wax dëgg day doy waar gars yi ñoo lay pousse si fen Pape Alé saa bi dafa am ku mu jàppanteel daa jàppanteel lu naan nguur léegi nguur googu noonu mu jàppanteel xam na ni que il est vulnérable de ut fu muy làqatu instant gi nii saa waay nu ma ko waxee Euh, protection lay wut léegi nag isa di dit malin di se ni que su amee sympathie wu taalibe yi wala su amee sempati wu talibandi yooyu noonu que moom il sera en sécurité mais c'est là maintenant son degré de connerie tomb parce que si talibandi yooyu noonu mu dem làqatu ji encore une fois ce sont les auxiliaires les bras droits du ñee nga jàppanteel ñooñu heure tayle la bis bu jotee du lay tayle Yo, le petit le petit le con qui parle là comment le pape allait là Yo, les vol tu te crois en sécurité tu crois que en partant faire ta connerie comme ça là Yo tu t'es tu t'es sauvé que les yo expliquer lu la pour gars ce n'a, la ouais parce que rek ànd ak seen fenkat yi mais non non heure heure heure la ça va être les mêmes lay bi la ko la bu simple te gaaw dem tok li fi même talibandi ni ngay dégg di jow di di wax le petit pape allez là tu parle qui cherche quelque part à te cacher yow lay waxal ñëw tok yéen ah qui tourne. ah on tu sens quelqu'un qui est entre des choses qui veut gisuma Pape pap borom preuve borom journaliste waxkat gu mel su amone preuve yi mi fu mu ko waxee foofu la koy génneewee foofu la leen naan nii papier yi naan leen gis ngeen comme ni mu bi ñoom bu rëy bi nii la kay defee naan leen gis ngeen papier bi kii après naa ko moom si day sóob léegi yen le baso basson le le le marabouillon bassoro le ba le le boucheron c'est pas boussuru ba kooku xana amul gaming, en tant que porte parole mom mënul waxal bopam quoi mom moy waxal communauté bi noonu lii du tudd ko si lenn mom mënul wax na porter plainte quoi mom il attend quoi mais mais mais légui sénégalais yi ce sont les petits comme na les petits talibandi là les petits cons là la connerie de la base base espèce là ñom légui ñom ñoo transformer rek ay porte parole légui yéen yéen ay porte parole bas yi quoi yéen ñaata la leen fay bas sax mom au moins il est rémunéré pour ay fenam ak yi waxam mais yéen combien on vous rémunère

te ñun ñuy laajte ay preuve boobu ba léegi mënoo leen noo preuve donc da ngeen di tëj seen gat parce que su dee preuve yi toll na leen foofu commencé leen preuve nu breuve nu breuvetiser affaire yi dès le départ commencé preuve yi si ben quoi vous voulez des preuves mais am na yoo xam ne amoo leen si preuve ngeen gëm ko ñu ñëw di wax di lijjanti rek ngeen euh, waay booy ana preuve yi ana wala nu preuve ni que diw julli na si géej wala nu preuve ni que tëj nañ tamit diw si ay four wala nu preuve ni que tëj nañ diw a gaynde ngeen wax ma ne léegi coow jibul léegi na gaa yi ñëw julli si senegal Sénégal jarul géej bi nu julli fleuve Gambie wala nu tëj leen ñoqal ko baa wala nu uddi jënti gaynde xool fuur yi nag moom du jeex Sénégal boppoo koñ boppoo koñ boulangerie la. yéen yéen ngay topp si wax yi di tëb di daal boobu ba su leen neexee ngeen toog ñëw andi nu seen waxu no sense su ngeen demee fële ngeen bëgg gëmm-gëmm nee nu ok léegi ñëpp gëmm gëm quoi non ñun daal di nii gëmm rek di gëm non non mais come on sama gaay yi waxoo leen fi dara Bass Abdou Khadre est un porte-parole waxkat la wax lañ koy fayee wax la fa toogee wax rek lay woo tey tu tuumaal nañ ko si dara war naa mën a ñëw ubbi balaa maa sax si yenn ubbi bi wax wax bi bii bii mu ubbi ko wax ah yow soo waxalee ñëpp waxal ba tey nga concerné yow kaay nga wax yéen yeeg ngeen ngeen wóol ba tur waaw non booy waaw ah, kii nangam waaye du tous Bass Abdou Khadre du tous pervers muni de ingri personne ab simple pervers bu bëgg àdduna la du tus ku mu naqari nga mbëkk mur yi Baay Faal déggoo ma ne sët yi nii toog fii nii di sóob di naan ñooy seen maam ñooy seen maam leen maam def na lii maam def na lee ñoo ngi leen fay xaar leen loolu nuy ndamoo naan seen maam seen maam seen maam def na lii ñoo leen si xaar su dee dëgg la si ñoom ñooy sët yi bismillah werantexu waan tekki tubay mais yéen les petits banditisme là c'est pas les petits euh, talibandi là vous allez nous foutre la paix vous allez nous foutre la paix par ou wala par ou wala par nu lijjanti ko Baye Fall yéen yéen moom nan len leen lu sedd wax nan len ko cent ans quatre dimanche lijjanti len yu sedd yi di tok di nan, di dans 5 xol on va s'occuper de cela hmm. Baye Fall Bass Abdou Khadre luñ ko waxal moma. te xolal nee nan len ba sonn yàgg naa leen wax ne len yii ñoo kalaate xam nga ba may live live bi passé ne newoon naa la yéen seddoo Dakar bi rek ngeen feeñalegum moom ngeen gis xam nga waxoon naa naa bii moo classé xaaleen village yaa ngi ñëw village yi sax jaay neen leen te yëgunu lul xew di ngeen gis ku toog si village nu ñëw débarrassé village lëmb di leen ba ma leen koy wax gis ngeen nekkate yoo tool yi tool yaa ngi dem tamit waaye vous n'avez rien compris day leen toog di saaga su demee na xam nga fa la ñuy muju nak sunu yaay ak sunu baay ak sunu doomi tamit nu fekk leen fu nu tok yëkëti leen na leen jar ngeen bu yàgg jaay neel leen ngeen nekk fi di expliquer ne naan nu leen jaay neel leen bu yàgg dem leen parce que gaay yaa ngi nelaw gaay yaa ngi nelaw di lijeenti ay sasu magal tok di lijeenti ay affaire pendant que gaay di seddo dëkk bi di seddo dëkk bi sa koolaa ku ñu ñëw di wax ay waxu toolu kii ni nangam loolu yàgg na fi du lu bees du lu bees ya-, yàgg naa fee kaas na la ñun suñuy maam nangu seen i ne nguur a soxla pour jël ko defara ko ñëpp mën say bokk yem mais léegi si bii ñun ba ñuy jël maam mu too suñuy toolu maam di ko réquisitionné am na si ñoo xam ne seeni toolu maam kenn jëlu ko du leen bàyyi nuy doxal ba pare nu deetu waaye ñëw tey ba toolu foo xam ne nu wala nu jël du ñëpp bokk wala say defarandoo ñëpp yem nu jël ñooñu nga xam ne que seeni toolu maam de un kenn musu koo laal ba pare jël suñuy toolu maam di leen ko jox

sen tati su ngeen ko fa tegol mu boy mais fof ngeen di dem tok di lijjanti ay affaire di wax fàtte yéen seen i propre donkal moy yo yu xeeñ yooyu ngeen bàyyi ci bi sen buntu keur ngeen romb ko fi dem di ne ken du ko fi waxe quoi mais yéen mais vous êtes magnifique Ne, naa vous êtes Mbass Abdou Khadre tous c'est un simple pervers un branleur à l'eau de javel un simple branleur au brass De nga lu aigri de richesse et à la recherche d'un avenir facile. D'où tous, d'où Abadjada, d'où Alif Lamim Del, Sawaï, d'où Dara, Kumu Nakarinak, Matar Sabaken. C'est un simple porte-parole qui profite au nom de la religion, qui profite au nom de cette tariqa qui, qui fait sa belle vie. Boulen nous mom, boulen nous mom, l'umbatu begenak, l'olo barbeg. Voilà, nous nous xolu muñ xolu abstinence jàngal nit ñi nu ñuy téyee seeni loxo nu ñuy xam nga doylu wee nu ñuy reggee mais ñoom ñoo gën a foqale ñëpp du ñu doylu du ñu regg toujours toujours toujours toujours fu sàcc nekk ñoo ngi fa suñu waxee nu ñëw expliquer ay affaire naan waa waaye joxe te yaa sëñ bi waa kii ni adiyati sëñ bi waa waa kii maam maam waaw say maam waa nangam ba ok grawul man man mom duma fi nek di discuter ay affaire gaay discuter nañ fi nee naa leen trois mois julli na julli wul tej nañ ko tëjuñu ko wa taxaw naa gaynde taxaw gaay saaga nañ ci 3 mois andi wu nu lu bes wax ne lu len neex wax nañ seni affaire 3 mois de déggoolu moo la wax wee wee wee yow da nga alagu yónnee nañ seni alak bo ba léegi 3 mois jotaguma dara ñom ñoy cëppel ba léegi ñom ñoy ñoy ñoy dagalé ba léegi wax gi leeragul nak 3 mois wee wee wee wee pédophilie xam nañ fu mu feeñee traficophobie yi xam nañ fu mu feeñee kat yi xam nañ fu mu feeñee 3 mois nak la lay tegal ni, légui nangul na lé néna lé leen comme que amo leen réponse dem ngeen bu mënoo leen ko ay saga ngeen ko ay alak ay malédiction ay affaire te bo ba légui yéna gëna sonu ndox amul si dëkk bi nawet bi yegg na gaa ngi as di dem waxon na leen ko dee départ toog di saga ba ndox bi fekk leen fa di ngeen am lu ngeen di yéen lu ngeen bolé bëri lu ngeen boolee bëri du leen moom ñaari yoon moom leen seen biir dëkk ndox bu neex amoo leen ko ba pare ba pare ngeen bëgg a jug li jël senegal Sénégal Sénégal yeewu leen yéen bàyyi est-ce que ça va yeewu leen bàyyi dëxin yi sax tooyatunu mbaxal yi nii na tunu tooyatunu gars yi wax ngeen di tab di lijjanti ay ay escroc ay escroc au xaftaan la ak ay petit moustache kii maa ko dàqale sa moustache et eh, des petits escrocs comme ça ñëw fii di nu naan ay ay ay yéen Baye Fall Baye Bass Abdou Khadre mustaasam laso kese la koy doyee laso nan di tey nag laay waxal nan tey xam na luy laso laso rek la koy doyee laso bu mu sonal nit ñi saa waay du waay mais mais mais ñuy wax gars yi tëb fu nekk waa kii nangam moom en tant que waxkat na ñëw wax moom manam ni ko may waxkatu ligne bi wax na wax a wax ba ki wax moko jox ay millions tay ñak andi nañ ko ci wax léegi mo ngi si place su wax bi mo ngi fi wax waxkatee fi nekk fii gars yi i wax ba dugg boîte vocale billahi su dof-dof lo gaay wax sa ba wax non na ñew wax na wax si leeral si boppam werante xuuxaante ki tubay quoi mais nek fi ni bay fi xam nga petit larbin yi larbin yi kon yi ni ñom ñofi nek di expliquer te ñom sen bop lu leer mënuñu koo wax lu leer mënu ñoom si bopp nee naa leen ba sonn maag ñoom a yem ñoom nag fa laa différencé ak ñoom man accepté naa ni que xaw ma maa ngi laajte di teg ay wax di ko yëkkati di wax gars yi ñuy partagé mais ñoom nag nanguwunu ni ko xamunu ba pare bëgg see boole wax gu bëri bëgg see boole menacé te bëggunu kenn xam bëggunu gars yi yëg bàyyi di ngeen sonn de nee naa man rek billaay wallaay naan leen bu seet di ngeen sonn man xaw ma ñewuma di len jaay ab bilal duma cheikh duma sherif xolal duma mais daal xolal len ko di len ko waxtané ñu xam wax ñu xamul jang ñu mëna partager partager di len ko wax du bay on a fait moy lolu di ngeen ko dégg de ngeen ko dégg Bass Abdou Khadre ya yaa Bass Abdou Khadre suni neuf suni neuf hectares lañ wax waxu laat neuf hectares deux cent hectares wu Youssou Ndour pareegunu deux cent hectares ñoo ngi wax yéen xaar leen bàyyi bàyyi le gâteau le gâteau yee ne yaa ngi ne di def non toolu jàmbur yi non di kii non non du lu bees ah tout dernièrement avant bi ni di ànd kenn ko leen woon du benn préfet bu taxawoon yore cigarette am di tux ànd ak ay gars yi nam pour lan village boobu noon tamit lan leen fa xew ah nan tok rek gars par eh, man moo tax gars di wax na len 5 ki ma budak hectares ki man la leen yéen setal len bu Dakar feñ nee naa leen ngi wax mais wa village bi si yo na ngeen commencer juk dem lijjanti eh, agglomération ak seni papier xol ku nek fu nga dekk gox bo nek wal nga jema dem leerlu dem ngeen joti mairie yi papier yi xool na gars geustu xol lan mo dese si suuf si ak yu jot dem ak yu demul parce que gars yi toog nii di nelaw ni maire yi nu fa tek c'est maire intérim yàgg naa leen nañ dem récupérer suñuy député ak suñuy maire tu ko récupérer wu mooy loolu ce sont des places stratégiques loloy deuk fofu la affaire di commencer mais xam nga nee naa la nit ñi da ngay wax ak ñom ñom instant yi duñu gis ce qui y a de droit de faire seen bëgg-bëgg la ñuy gis moo tax duñ koy jiital mais duñu xalat lu lu lu ce qui ce qu'il faut faire normalement quoi mën na leen bàyyi mënaguñoo jot ci kaw nañ jot yu nekk ci suuf maire yi xam nga sunu député yi chasse aux députés koj ay maire ci mbedd bi nokku len bonu saf-sap ak ay député duma len bonu saf-sap ba nga xam ni que gars yi dinañ commencé deglo ki dem wax len wax lo tek fa tamit ñu leen tegloo ñu baye xel ñooñu ñoy jaay suuf ci ñoy nek à des complices ma xool leen xool leen xool leen doomaraamu Aliou Sall Aliou Sall bàyyi Aliou Sall ba ko fi tongalee bàyyi na caisse nationale fu xaaliss bi di jall mu jaral ko bàyyi le la nga amu ci mairie gars yi wax mairie bi mu teg si bakken ngeen xam ni que mairie y a quelque chose bàyyi faal fu xaalis du romb nga bàyyi ko dem jàpp ji que si si ay mairie y a quelque chose yeewu leen gars yi nekk fi waa yow waxu dof ngay wax yow moom da ngaa mandeeti waa yamba bee kii nangam ki loo wax rek sunu xam rek yamba la mandeeti nga ay kii balaa noo comprendre nu jar suñu jaré ba pare si nak la affaire bi def ben buzz ku nek bëgg sé wax wa wa wa wa gaay ci la ni soga comprendre bay billahi fek ngeen nit ñi wax ko fi ay mii top ci di wax di yuuxu di ki nu saaga len wax bu nek mo ngi ni mo ngi ni ne ba ngay dee naa 9 hectares yi sax le clerc la ni wax nañ joytu suñu région yi ay Louga Casamance Kaolack Tamba xam nga Cap Skirring nañ ko lijjanti lu lijjanti yooyu nañ xool ñal na des si suuf si quoi nañ ko xool agglomération yi nañ xool bàyyi jam ñaajo jeex na jam ñaajo gars yi gars yi doomaraam yi maye nañ ko APR moom jam ñaajo waa APR ñoo moom jam ñaajo mayente nañ jam ñaajo képp ku ne Macky eh, Macky jam ñaajo lay dag jox la ku ne eh, Macky jam ñaajo mu dagg jox eh jam ñaajo nañ ko génnee donc nañ dem jas jas sax nañ ko wax nañ ko génnee léegi nañ dem entrée Thiès quoi nañ dem entrée Thiès na gars yi commencé bàyyee xel suuf si ñu xool parce que léegi Sénégal suuf si ñun suñu bopp xamuñu la moo la si suuf yaa des richesses affaires yaa ngi doomaraam di ko may ñoom seen affaire yëpp suuf suuf suuf suuf suuf suuf suuf nañ toogaat encore di lijjanti leneen bay leen a dem lijjanti lool bay leen a dem lijjanti lool. ay toog di wax di naan kii euh, benn benn benn nu ngi koy waxati benn rigolo rigolo laa koy tuddee nee na apologie de la violence ça ne règle rien ne ko waxoo fi dëgg de billahi waxoo dëgg baay mbaam dina wéq doomam sax taxul mu bañ ko déggoo lu ma lay wax de la violence ak ay ak ay nag loolu ay waxu dof la ñooñu ku leen ko wax yëpp mooy c'est les paroles des endoctrineurs ça ça a été les paroles du colon de watch Watch di de Afrique bëgg a ay affaire suñu une croyance une religion pour pouvoir nous nous tenir en esclavage pour pouvoir faire son esclavage mais le tax ba Macky Sall ne toog le confinement ngeen bañ mu duma leen gars yi dégg yow yaay wax ba apologie de la violence ba Macky Sall ba mu yeewoon na leen toog leen si kër yi confinement toog leen kii nangam daf ko wax si njekk ak terangono lan la gaa yi def du da ngeen génn si biti di tëb di tëb di daal di jaay ko mais ba nu est-ce que wax nañ gaa yi dem génn leen wala tëddi leen gaa yee xamal seen bopp heure bi amul kenn ku nu régleel boppam heure pas yëpp amoon horloge ak seen montre au même diapason daw ay marathon nga doon gis ay marathon 6 heures et demi bala sept heures di daw marathon sa sa éduque yéen tok fofu di wax yéen tok ñun leen japp nak ay mbam démonstration bi si ñun lañ koy def té duñ ko def si ñom sa éduque sa éduque ku la wax lolu ku la bay c'est des conneries souvent quand on est au bout la la la manière la manière force la manière forte comme nous ko wati et de droit déggoo lu lay wax la manière forte parce que gaay waxtane nak ñom 60 ans 60 ans waxtane nak ñom fu ne doomaraam bu nekk jaal na fi waxtaanee nañ ko nu ne nu créé nañu façon ONG bu ne dugal nu si ay guuta gu ne doolal dolli suñuy dette ba ay waay Macky Sall a c'est même pas deux mandats plus de 8000 milliards de dettes hein boobu ba léegi ñoo ngi négocier gars yi di wax non on essaye l' autre méthode déggool moi de l' autre méthode wulli la ndulli national bi laay tendre par carte jarul deret génn code si angle bi te wala tendre ba mu taxaw génnee si ndomb pétaaw yi caxat caxat seen taat yi ba mu tàng jël dugalaat si oto yi ne dox leen billaay benn régime ñaari régime les futurs mini gars yi koo si joxati caabi bureau il va réfléchir à deux fois balaa de le plan parce que naan gars yi nii mooy loolu amatul ay ay poste neexal ay sama ndaye ko liggéey ay con yoo xam ne niveau sem de xolama ay ay ay farba ngom ces cons là ay con, yoo xam ne mënuñoo bind ay dof yoo xam ne xamuñu dara toog hein, yor ay ñaari poste nekk ay député maire nga gis ay kii di doxantu si biir ministère yi ñiy nekk si kii boobaa koo si joxati place wala koo si tàllante kii naa la woo oh, sama gars yi si ginnaaw su ma fa demee di nelaw parkaat yi mooy lool ils vont ku si amul diplôme ku si wóoluwul doo toog si place mais le laisser la là le kumba am de le piston pistonné koo xam bras long bras de suñu pistonné la nga ñëw toog looloo ni kii nii borom diplôme yaa ngi Sandaga di jaay ay rangu rege ji cent morceau deux cent doomaraam yu nga xam ne ni que ne musunoo toog ban sem deux leen yem ñoom ñoo nekk si place di dawal 4-4 yu mag yore ay millions yoo xam ne xam na sa nu ñu koy gérer koo yooyu nag leen jël dem nu wala def politique ak ay nit ñoo xam ne Sorbonne leen génnee ñiy génn ay MIT ñiy génn ay ay Cambridge ñiy génn ay Harvard ñu ay con yooyu ñoo war a dem jàkkoonteeg ñoom def ak bàyyi avec ça ngeen ne on va construire le pays dëkk bi dina dem ay con ñoo tag naa ma ay apologie de la ñii du leen di noddanti déggal moo leen de noddanti liggéey par force noddanti ba nu ne cocc ni coro rek ngeen naan ma ay waxu kii toog leen fii di seral gars yi ñëw toog suñu bopp yi di fa ndëkki gars yi toog suñu bopp yi di fa salsa bopp ba léegi yéen ngeen toog suñu waxee nu noq nu suñu waxee ñun nu tëj nu kaso suñu waxee ñun amuñu li mais ñoom aca boo léegi ah l' apologie l' apologie de la violence ñun waroon protéger sax ñoo nu noq muy suñuy propre policier suñuy propre gendarme yu ñuy fay yoo xam ne que suñuy xaalis suñuy njël di leen fay pour nu protéger nu ñoo ñoo wëlbati ko di nu noq yow nga ñëw ngeen toog leen foofu di nelaw dee nelaw rek Restez là-bas à dormir sur vos, vos conneries, vos, vos no-sense que vous parlez là. Qui et d'où le juk. le Bye. réveil réveil bi kay moom dem vous nañ yi ko wax je le dis et je le redis seule solution à ce problème est le combat le combat contre qui nak? contre ce régime de voleurs, ce régime de menteurs, ces enfants de la France, ces petits moussaillons qui sont venus pour nous faire le bordel, ces blancs noirs là, ces tout yu c'est ça ce problème c'est avec nous, avec cette France avec cette lep, nous devons un peuple uni un peuple soudé pas pas de religion pas de qui. amul tarixa amul dara nous devons ñu taxaw pour dëkk bi mën a jaar yoon ñu teg ko si yoon amul kumba am ndey amul kumba ñàkk ndey amul parparloo léegi nag ku mën a doxal si ñun lu nu bëgg nu ànd ak yow nga doxal ku si wàcc nu parkaat la ba nga ñor ni ñot ñi ñoraraj déggoo lu ma la wax y a pas de négociation amul ay dugg na fii ay kii ay dëgg langue de bois ay affaire de kii non saa yu négociation amee ONG bu bees lay créé loolu yàgg naa leen ko wax sunu xaalis la ni sa non non négociation nu coûte vous n'avez jamais remarqué ça ah, non Ça, nous l'avons leen sur table Nous à la fin ça aboutit à quoi la création d'une ONG wala d'une association wala d'un what the fuck qu'ils vont nommer on ne sait pas quoi et après là ils vont encore choisir certains cons qui vont aller maintenant se défiler là-bas avec l'argent de ceux qui étaient en train de protester et le problème n'est jamais réglé UNICEF ONU hein, euh, ONES euh, tous à été créé chaque à, chaque période et à, cause de ces de choses quoi te lu nga xam nu créé leen ba tey rien n'est réglé rien UNICEF tey la xale yi gën a mën a yelwaan xaat booy taalibe yaa ngi foofu fees Dakar lan na ma seen liggéey soo wëlbati ko nga gis leen si maillot football yi ñuy sponsoré ay joueurs yow sax tu te poses la question que léegi ñun don yu doon def nu dem jàppale ñi fa la jëm c'est parti sur le sport c'est parti sur le sport les maillots des joueurs basketteurs et gars yi xaalis lekk Les Ibaïfal, il n'y a plus de négociation. Il n'y a pas de négociation. Gaye fi nek di wak di expliquer di tek. Non. c'est nous le peuple. On veut ça pour notre pays. Gaye commence donc nous nous gueuler nous fait la way. Nga commence concon Il y a pas ces choses. Procureur corrompu qui dit nangam. On te coche sur la route. Billahi par quatre la ba nga tot ñu ciororot. Ndegol, ya ngeen nek fi di expliquer. Ñu venu nan yooyu kii nii nangam xoolal lii laay wax c'est ça leen lu koy waxti ñàkk gëm lu wax là où tu vis tu es protégé par la justice par la violence je parle même pas de la loi ni ki parce que tu es con loolu laay tu es con et quand tu es con tu es con ñii ni démb lan leen un noir qu'on a tué non Baye Fall ñii ngay wax ma nekk justice bu am loi bu am degré bu mu toll du ay nelaw leen ko may rak do no rak bay fi raciste ba fi jugee demb demb la ba tey jii ni nuy wax soy dox ci deuk bi so fi ci 100 ba que racisme quatre vingt quatre vingt six demb demb rek gars ba y avait des quartiers noirs et des quartiers blancs des boutiques noires et des boutiques blancs fii racisme ba mu fi djougué yàggul soy dox sa da ngay sentir ni que ba légui ya des quartiers noirs et des quartiers blancs mais sou demee ba toll fi xam nga ñaata combat ñaata émeute ñaata xéx ñaata xéx le gars def ba mu toll fi motax ba tay ñoo kay xéx pour wax sen bat pour nu mën a yow nga naan ma ay laaw mais ñun tamit suñu bëggee laaw ko nous nous venons mu mel ni que là où nous sommes aujourd'hui on doit se battre on du si toog di wax di toog di teg ay convention fii ay convention libéré wuñu am nègre balaa convention yi di libéré nègre yi daa ànd ak xeex daa ànd ak lu naan apartheid bàyyi faal xeex gu métti gars yi génn xolal di waaye chasse à l'homme KKK yi nekk fii black yi taxawee ne noqante bi reyante yu sanguinaire ba ku nekk xam kuy sa moroom da di dem ngeen jéem a xool ngeen jàngi histoire ngeen comprendre ngeen xam lan la mais pas toog ni rek di wax un na sa se fait avec des belles paroles ak ay waxu ñëw di teg ay waxu ñëw di diw wala di non non un pays se construit avec le sang et le billaay wallaay loolu su leen ko waxul mooy dëgg Amérique bu taxaw bii nii tey lu ngeen wax dereeta ko lal dereto ko taxaw donc tay su ngeen demee ba nga bëgg jël exemple si ki te yow paré wo soti dereet da ngay sóob da ngay ñi da no génn dem soti dereet ñew du soti dereet bu ñu jël si dëkk bi danoo tuur da no ñew fekk fi ay nit ñu fi tok nu nokku leen génnee leen nangu seeni suuf tour fi dereet dem jëli ay nit encore ñew andi pour nit ñi liggéey ko nit ñi di liggéey nu dem ba sibi biir nit ñi wala génn tamé nu reyante ba liberté am da di histoire un peu comprendre comment le monde fonctionne mais léegi yow tu viens tu veux faire partie de ce monde yow da ngaa bëgg ñëw bokk à ce niveau mais yow paré go xex. da ngaa bëgg tok. ñu nak sëriñ yee yem toog muy dox loolu da leen bëgg tok muy dox après ñu tamit ñu am ay nit ñu nekk suñu biir di tok muy dox mu jaaxal c'est facile ñu nak mara yi ñuy xex mo ñoy yam parce que même jikko yi leen yor doo bëgg ñun toog muy dox comme comme ñoom gis nañ ko si ñoom jàngal nañ waxu toog miy dox wan nañ nu muy toogee muy dox léegi ñun le peuple léegi ñun sax léegi ñoo wëlbatiku comme nu ma leen ko yàgg waxee xaaju jeunesse bi nekk ay jëwrin ah jigéen ñi nekk ay Adja wala ay Maam Jaara xam nga gars yëpp nekk wëlbatiku léegi nu tous léegi mooy lool ku nekk na xëcc sa tarixa toog léegi toog muy dox sénégalais yi léegi business sa da nga koy bëgg ubbi ubbi sa commerce au lieu nga toog di xool nooy dijjante commerce bi mu dox da ngay ubbi jël sa chaise teg si buntu bi toog di xaar muy dox di naan yaa ngi xaar yàlla di jël ndox di sooti di sotti fii na gars yi dañuy ubbi business ubbi boutique du ñu toog muy dox dañuy fay bàyyi kenn kuy liggéey ñoom lu dem uti ji ay client wala dem xool koy tasi ji moo taxi ku lay gën a kii mais toog muy dox bi moom c'est est ça commence à rentrer dans notre sang ba suñuy wax sax ñun ay waxu tok waxu tok muy dox la ñuy wax mais duñu wax ay waxu nit ku paré pour juk dem lijjanti wala nit ko xam ne bëgg na mu lijjanti ku juk di xex non non ay waxu dof rek la ñuy wax mara yi ñuy tanéw ñu leen parce que des fois toujours seen yenn jikko ci ñun bay sa way déggoo lu ma leen wax de instant gii nii hein da nit ñi yeew da nit ñi dans un dans une période boo xam ne nous sommes dans une gamme boo xam ne Baye Fall mooy loolu gis nga lii lii moo gën a bon ci sénégalais sénégalais su nekkoon diine ma ne mooy diine gu gën a bon parce que sénégalais soo ko waxee dara nii mu dégg du si bëgg a moom kese quoi wala du bëgg wax gi mu nekk moom kese day bëgg toujours xool keneen ku mu duggaale wala keneen ku mu bokkaale wala keneen ku muy dugal si biir soo waxee nu naan la waa kee nag kee nag wala diw nag wax gi déglu ko soo dégloo nga jëriñu loo mën a jëriñu quoi loo mënut a jëriñu nga bàyyi keneen ku mën a jëriñu jëriñu soxlawu nu fi ay waa ñii waa ñii instant maa ngi ne sénégalais yi xam nga sénégalais jeexal na wax quoi bañ naa bu su ma nee sénégalais yi nekkuma fii di def ay différence naan diw diw mais am na ay con yoo xam ne automatiquement donc appartenir au sen Même ni que rek sénégalais légui ma suma né sénégalais ma dégg kenn ki naan ma même Iba yi tamit du ñuy muy dox comme mom Ibadou yi ci sénégalais compréhension c'est difficile pour ces quoi mais man je ne comprends pas gars ils sont à un niveau d'endoctrinement profond bon, comme le et il est général quoi basique compréhension le plus basique c'est compliqué c'est compliqué sénégalais mais sénégalais c'est tout le monde tous les sénégalais sénégalais sénégalais je n'ai pas dit les les je n'ai pas dit les qui, non j'ai dit sénégalais nous, nous sommes dans le talk muy mais il y a ni que maintenant, wa Ibadou, yi tamit ñoo parce que faut que ni que man je suis là avec les Ibadou. wala Ibadou est may voilà wala je suis là pour protéger les Ibadou. wala ay affaire u bye bye baay ay baay yéen yéen ay ut appartenance di pointé parce que lu nekk seen xel ngeen bëgg a génnee wax ko mais man lu nekk sama xel m'a ngi koy wax mënoo ma maa waxloo donc là vous êtes allé vous asseoir là loolu c'est vous que ça concerne comme lu ma koy wax moo tax ma naa da propre film doon si acteur ba pare bëgg gars yi nekk ay scénariste mënumaa nekk scénariste su sa propre film yow yaay sa film ya créé sa kii doon sa acteur bopp gère toi man sama scénariste bopp la maa ngi gérer samay affaire di ko wax quoi gars yi da ngay waaru da ngay waar du ñuy ñëw di commencer di créer ay affaire di wax man lu may wax su ma koy wax dafa leer Bas ma naan Bass Abdou Khadre dama naan Bass Abdou Khadre su su bi dama sumay wax ci Tidiane dama nan Tidiane bu leen ma euh, waxu sama laaj mënoo len ma wax loolu ma waxul man luma ma bëgg wax maa ngi koy wax yéen yéen a seni ginnaw clavier wala seni ginnaw bagage di all ay affaire yu ngeen di tek arrêtez di créer seni scène seni film ba pare di out scénariste duma sen scénariste yeewu leen gars yi danoo con con profond bo xamna ni que non mais gars da ngay waru da ngay waru Abu Bakri mooray an xawma lan man solution bu may wax bobu naan mi soy solution wax naa ko fi waxat ko ci live bi ñaari yon solution léegi xana benen solution nga bëggati wala tu comprends pas aussi parce que gars faut que nous comprendre rek wax di répéter di wol répéter di répéter di répéter di répéter un moment ça devient plus pédagogique yewulen waxtan bi neex na lol mais ça devient plus pédagogique loolu laa doon wax gars yi mën naa leen bàyyi fii xàmmee nañ ñoo xam ne ni ko ñoo ngi woon si combat bi dès le départ lu lii ñii lu lii ñor ak ñoo xam ne ni ko confinement moo leen fi dugal confinement ñoo fi dugal ñu bëri ñoo xam ne ni que ba lii fii tàmbalee leen commencé xàmmee ni que réseau sociaux yi am na ñuy wax mais ba avant lii fii di tàmbale ba ñuy wax duñ doon tàng xam lu di kookoolu di taxawal naan waaye gars yi de fële leen nekk di wax gaa yi ngi fële kii kaa kaay leen fii waa loolu rek nga doon dégg dañ doon siisu parce que noo foogoon ni ay immigré yu toog fii la amunu lu nuy def di ñaaw ñaawal suñuy mboq yu nekk Sénégal ñu topp di wax di wax di wax di wax ay minimum nit ñoo si doon seetaan suñu amoon ay nit Sénégal yu doon seetaan quelque nit la woon majorité nit bi diaspora fi nekkoon di ko dàqante ba lii fii jugee nag ba dal dalaa la gars yi comprendre que hey nekkate ñii lu doon waa dëgg la de lii fii dina jug lii fi yaa ngi jug lii fii jug nag nu toog gaay tamit am temps amatuñu dara lu ñuy def programme yi dey gaaw a jeex nga toog si kër gi tourné gars yi dugg si YouTube commencé seen toog ak i Facebook di comprendre boobu ba léegi la fi affaire yi commencé kii nag nekk fi gars yi di tëb moo tax it affaire yi salte waat man instant yi lan laay gis nii ba ñuy soog a tàmbale parce que daa am ñuy soog a dabe yoo xam ne que danoo commencé andi ay système yoo xam ne ñun ba ñuy soog a door loolu leen commencé ñu dem ba màgg ba tollu fenn gars yi di soog a yegg si quoi di ngeen sonal seen bopp di ngeen sonal seen bopp parce que lu leen di wax ba leen ko dalee wax boobu ba leen ngeen di dëgër bopp yéen a ngi koy gisal seen bopp un à un muy dal seen kaw un à un dëgër bopp bi rek a fi nekk boobu ba léegi dëgër bopp bi rek a fi nekk boobu ba gis lii fii ba ngeen ko dalee nu ne daleen ko wax ngeen toog di ko séntu lii fii yegg si bi mar bi lu leen gars yi ne dans deux mille vingt quatre nen xaar doxal deux mille vingt quatre man na leen ah deux mille yàlla na suuf si ah suuf saa ngi dem nee naa leen nag nit ñee si des ne woon naa ne dinañ fekk sax ay nit tamit si bii kër yi di leen fa sifaay loolu jaar na fi fekk nañ fi ay imam fekk nañ fi ay nit seen biir kër ndulli leen ba nu nooy waaxu leen police ko convoqué leen tëjlu leen yéen a ngi foofu ba léegi rek di saaga ki siisu voilà comme nu ma koy waxee rek ñenn ñi nag euh, comme nu ma koy waxee comme comme yi yii souvent daf may faj yii nii souvent daf may faj quoi mooy Papis Badiane waaw waaw yow moom dama lay tudd bu baax parce que ab mécontent nga mécontent boo xam ne que dangay ngay kii nee na yow moom góor jigéen nga états uni eh, eh eh eh eh eh booy su ma fi nekkoon góor jigéen nga xam ni que lépp dëgg la yow xamoo sax góor jigéen yi lu nu am fii ak doole bu nu am fii su ma fi nekkoon góor jigéen billaahi nga xam ni que lépp dëgg la mais loolu du wax gi en tout cas daal wax gi wax gi moom mooy góor jigéen yooyu noonu ngay wax yàggul dara cotisation limousine la ñu yónnee cotisation limousine ah xaw ma nag aaw nu fa demee noonu. cotisation limousine nag yaay wax ba léegi de te nee naa la toogal yow góor jigéen yooyu noonu ngay wax ñoo ngi leen di combattre bii Sénégal mais instant yi daa mel ni que ñoo yor sa dépense confinement bi confinement bi de am naa ni que adiyewu góor jigéen yi ñoo ëpp lu muy wàcc parce que keroog benn góor jigéen bi def na faux mariage nee na marié wu na noonu eh eh eh eh te eh, eh, ñam ñëpp xam nañ fan la ñuy wàcc heure wàcc su jotee aa ah, tuka cas leen toog place su yàlla di di wax seen bos su setulee seen bos su ngeen xamulee fu mu jëm te seen bos tamit su ngeen xamulee lu mu doon ah doy na waar ñun yoo xam ne moom mooy loolu xoolal ko nee na bul weer sa bopp eh eh eh sénégalais nee naa la sénégalais dafa bidon sénégalais boo bidon terre à terre ba nga xam ne ni que billahi wallahi soo ko soo ko toppee rek yow sa à la doo musa màgg say at ñooy màgg mais yow say âge da ngay nekk âge un an deux ans ba tey doo màgg quoi da nekk toujours si sa bopp bi comme benn gosse. boo tax sénégalais soo leen toppee wala nga yàgg Sénégal da ngay dof ne yow laa lay wax sénégalais moo tax soo génnee sax laa lay nga nekk immigré bu génn nga bëgg say génn bu di fréquenter sénégalais billaay loolu tamit dama koy wax ñu génn ñoo xam ne que ñoo ngi liggéey si stade xam nañ ko soo génnee sax nii nga nekk ese di liggéey nii doo fréquenter soo leen di fréquenter doo dem doo dem wax leen lay tegee lijjanti du nu màgg gars yi koo leen lijjanti duul soxor iñaane fen duul moo tax la nga daal rek ki feet ba feet feet ba feet dara am nga ji salaam salaam salaam dox sa dox xam nga dem kii wala su ngeen dajee waa sa mais soo soo demee sa immigré laa lay wax nga bëgg dara sa ndey sa baay nga daj si genre papis bajaan yii ak ay genre xam xamal ni que càng c'est fini genre yooyu noonu parce que ay kooleen màggunu gars yi ay kooleen dafa am ay nit ñoo xam ne a ah, boo avoir cinquante ans soixante ans am quarante non mais soo duggee si bopp bi nii xale bu deux ans sax moo leen gën a muus mën na leen jël watar leen dem jaay leen dof yooyu noonu nag am na si ñu bëri ñu nekk si diaspora bi laa lay tegal nee naa la da ngay wàcc waay waay fii xam ne nu mu demee ñun tukki rek fii nii ma toog mooy sama vingt deuxième pays man man si tukki laa juddoo moo tax ñu bëri di wax ki ma ne man juddoo ma Sénégal su may ut extrait de naissance affaire étrangère laay dem affaire étrangère laay uti extrait de man du Abass Ndao du kii kii affaire foofu laay utee waaw la gars yi xamante j'ai vu les sénégalais dans tout leur le leur position déggal moi dans tout leur position kay loolu du lu ñuy nettali man sénégalais non je l'ai vu dans tout leur position ay affaire yi kii gars yi ah, vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris là. est ce da ngay wàcc kii soo bëggee tekki sax soo génnee nga bëgg liggéey jaar yoon concentré wu ce qui immigré bu si bëgg day moytu genre papis badiane yi xam nga genre kii kii nangam su dul loo du ay du lay tardeel amoonu yiite sax même à l'extérieur jikko yu bon yu nekk Sénégal yu ñuy kaas ni di ko lijjanti moom leen àndaale ba si extérieur ak yeneen dëkk yi dajaloo toog duul fen naan caayin wala xolal soxorante kii am projet wala kii am contrat dara nu xool na leen koy waaxuwee jaar si suuf yàq der ay kii yàlla nag bu mu nekk na groupe ñu yorul këyit ñoo xam ne ba ñuy dugg visa leen duggee kayit yi matagul non ñoo ñoo gën a bon ñoo du ñuy neer ñoo du ñuy sanguinaire laa lay wax du amul mbokk amul ma dem te ñëw lu leer laa lay tegal Sénégal non del sekk ak ñoom korité korité tabaski tabaski wala kii suba ngeen daje si jumaa bi sawa sawa su suñu xamee sa foo dëkk mooy loolu problème la chaque instant nu bëgg def seen yëfu Sénégal yooyu maa ngi fay dox maa ngi lay kii nii nangam du ñuy duul dañuy ñëw ubbi sa frigo bi rocci lu nekk si frigo bi lépp lekk ko lekk sa ravitaillement lépp ba pare dox seen dox loolu leen fi nekkee di wër di jéem a di am affaire yu ñuy teg Baye Fall xam na nu mu fa demee de laa ilaha illallah sénégalais yu nekk à l'extérieur laa lay tegal ñu si génn bu baax mooy ñu xam seen bopp ñu xam fu ni yem ak ñu moytu yenn groupement yeeg yenn kii yenn ñuuxante yu non si ñooñu nga fiy gis ñuy liggéey xaas gu weex tàll chaque vacance nu mën a ñibbisi waaw ñëw vacance ak seen njaboot ñëw mais gars yi rumbaxloo yi nii les ma rumbaxloo la les gars yi kii nii nangam du dem fenn trois ans ba trois ans balaa noo am paasu aller retour vacance fii la ñuy càng taxawaalu lu nu liggéey tey lekk ko suba taxawaalu wër ànd ak ay duulkat di duul rek wër di duul rek on vous connaît de parce que lu tax gars yi màggagunu fii màggunu fii at yee màgg rek Ati màgg nii mais soo fi fii no dañuy ñow ba fi sax ba léegi di crise cross di ki di yo yo yo no wala ay what the fuck on s'en fout on s'en fout xamantene sama gaay bala ngeen di saga nit ñi da ngeen di xol yeen sen bop yeen ndax am ngeen fu ngeen tané nit ki wala yow sa bop yow am na nit ñi dañuy tok di xaste di toog di expliquer ay yoo xam ne que ñoom seen bopp xam ne ni que hmm, mooy loolu mais dañuy ñëw di sànni ay xeer yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla suturaal yaay bàyyi far nu yàlla suturaal eh eh, eh yaay déggal ma déggal ma defayaam déggal ma booy bi nee na li may def nii yi na yow nga ñëw toog saaga nit ki góor wax say wax yu xewi def say affaire de débat def ma wax la sa bop légui yow nga ko di ma xas naa ma lu mais man man sénégalais doko ko comprendre sénégalais man nee naa leen lii moo tax du nu mëna défar dëkk bi kumba am day kumba ñak tay ba nga ñëwé bay wax lu bon wala ngay ñëw di défar nit ki lu bon di wax lu bon faut être prêt à encaisser aussi nit ki lu nga bëggal sa bop ngay wala bëggal nit ki wala faut paré ba assumer nit ki nga paré ko assumer ko ni ma lool la gëm lool la gëm mais nit ñi dañuy ñëw toog bëgg la saaga bëgg la wax seen lu bon expliquer la seen affaire yow nga toog léegi yow soo lijjantee tamit sa bopp dóor leen dara nu nala la ñàkk jom wala yi xeewi na wala yow mais mais mais léegi yow loolu soo ko xamee yow yaa am jom yow mii ni ñëw fekk ay nit di waxtaan nekk si leen di wax dara di yeeta nga ñëw wax fi say waxu no sense cey yàlla onze billahi jaam onze jaam Il y a de yéen nee naa problème du parce que le problème du sibiti de y a ay problème vous êtes votre propre problème un problème du yomba pas arrangé nous sommes notre propre problème gars Le problème ne vient pas d'ailleurs c'est nous le problème Il que nous lan la lan des nakalaak lan tant que nous nous on est dans Europe nous sax lu ñuy wax gars yi du ñuy wax nii rek pour wax accuser mais gars yi tey jii nii comme oh, bëgg euh, Sonko mooy kii nii langam Sonko dafa wala kii Sonko liggéey dëkk bi Sonko wax comme lu ñu wax lépp avec tous les bienfaits heure bu saa waay ñëwoon ba toog au lieu ñu jox ko armes yi mu koy liggéeyee sax de ça va être les mêmes cons yu yëkkati woon démb naan kii ñooy ñëwaat def encore les roues su ñu ko tuddee bâton sous les wala ñoom ñooy nekk fële ne di yandoor di def de la merde di xaar nag ay luxus wala di xaar des exploits extraordinaires qui vont se passer parce que lu tax xamaguñu ba léegi fan leen féetee lii ndax équation la wala fraction la wala xam nga dictée wala on sait pas où est-ce que nun daal nun daal danoo mel lu topp suma riirandoo bi rek di teel di dem di teel di dem gars yi kenn mënu leen comprendre man souvent nee naa j'essaie de vous comprendre moo tax souvent may lire messages yi sax tontu mais je me rends compte que à chaque fois que même je lis les messages c'est là où je m'engouffre foofu laay duggee si ay problème fa laay kii parce que pour vous comprendre c'est incompréhensible y a pas man faut qu'on vous cerne parce que là c'est incernable comme mais kenn xamul tantôt gars yi dañoo bëgg defar mais ay wax yu yàq la ñuy wax wala waxu doomaraam la ni yor wala danoo bëgg nu gi mais en tout cas daal foog wax gi féetee tubay féetee boor wala sol tubay wala mu taxaw quoi man j'y comprends plus rien j'y comprends plus man daal maa ngi continuer di wax samay waxu bopp xam nga di kaas samay kaas quoi mais léegi tey jii ni su ma bëggee dem ak moo daal di dama koy kaas ginnaaw nit ñi nit ñooñu ngay kaasal ñoo nekk nii de nit ñooñu de ñuy kaasal ñoo nekk nii te wax yu ñuy wax ay waxu no sense la parce que waxuñoo Sénégal lu tax mu po parce que si bir rek am lu len cof lo ni que neexu wala àndunu si te nyom l'ol non ne neexu len wala àndunu si leer la ni que teguñu ko ci fen parce que tey solo ñewé na len leen ngeen démontrer ni que yeen li ngeen di wax si lan ngeen ko teg wala ma fu si ay saga leen koy tegaat ci lenen donc donc pour ça léegi ñun fokk nu nangul leen di lacune continuer te na bëgg défar ñoo je vous comprends pas les gars

moom mooy yor sa caabiw na yow nit mën a ñëw toog wax la loolu yow ak say nopp ak sa xel nga gëm loolu ba pare yow nga bëgg non non nga am c'est c'est con quoi nit koo xam ne tàgguwuñu ko ba ngay judd bu ñuy jël ma maniw di ko def ngay grossir di màgg neuf mois judd toog màgg ba ba sooy dee sa kenn du ko tàggu ne ko waaw saa waay moo ngi dem mais quoi que la meuna a na man ma lay parce que on dirait que c'est nous qui avons pas compris quoi Maintenant... parce que soo xoolee àjjana bu yalla gi expliquer ça ci alquran ak àjjana bu borom caabi yi yor c'est deux àjjana yu différent quoi bokul donc on dirait que si diggante bi gaay da dañoo benen beneen ils ont créé un autre paradis te gaay yi lu xew quoi il y a eu ñaari àjjana ko moo am àjjana yu kaw saray ak àjjana firndaw sibi bi quoi hmm hmm c'est très intéressant ça quoi parce que on dirait que c'est on doit revoir l'histoire parce que su nekkee benn àjjana bi la mais bu nekk si alxuraan ah nu ñuy def ba dugg si yàlla wax na nu nu mën a def ba dugg si quoi te bobu caabeem leer na moy alquraanu karim jaamu yalla xam nga nekk si sutna waaw léegi nak su amé benen aljana bo xamné ni que bobu mom topal nit joxel adiya on doit faire des sciences lol on va faire je vais appeler les professeurs dina wo sama prof yeeg gaay xam nga xol gaay yu mu si ëpp xam-xam on va faire une thèse sur cela on va faire une recherche parce que Lolo len ça m'intrigue ça m'intrigue quoi parce que je me dis s'il y a deux paradis comme il va y avoir deux enfers hein intéressant ñaari safara Hum. safara bu yàlla gi qui moi, je bi nangam je bu faut je nga comme que moom boobu wuu des ak parce que boobu moom raw bon gars thèse parce que là faut qu'on trouve le hic le hic qui est au milieu quoi parce que gars il faut nous expliquer nous parce que maintenant, ça rend faut qu'on nous explique parce que nous, sommes nak parce que lu ci gëna a nak té nak nag wax fi lu dama bu c'est au point où sax islam doole ak vilipendé islam té nous, nous, nous message ak genre wax ko commencé exposer ce kaw je vous le dis très dès à présent yenn wax a ma tiital nii ak yenn wax yi nga xam ko mooy du ma non non kay ak umma muslim bi nu nu parce que question yi dem ba di ko pooy wala wax c'est wala ala c'est carrément à remettre en question la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam remettre en question encore le Coran Al-Quran Karim hein? et remettre en question aussi les prophètes qui sont venus, qui ont missionné tous à travers. Gars, ils appartiennent à Ben Tariqa. ba pare appartient à l'islam parce que les gens dem na ba taxawee une position ils ont été exposés. dinaa ko def ay chi ay ay ay screenshot def ko monté ay teg ko gars yi gis parce que nee naa leen seen yenn wax yi ngeen di wax si suuf saa reflète lu nekk seen xol yi. parce que su ngeen demee ba mu toll si dofeel boobu noonu ngeen di wax yenn wax yi wax toll si yenn degré di di xalaat yenn yonentu yàlla gi wala di di di xalaat encore si alquran di ko wax wax yu demee noonu nu nga waxee donc man une fois de plus j'ai de quoi avoir peur de si lii ngeen di woote. wala si ngeen di xëcc nit ñi une fois de plus encore je dis j'ai de quoi avoir peur loolu dinaa ko exposer gars yi gis ko parce que c'est très dangereux parce que gis naa si kenn ku naan ma firndeel ma ni que yàlla moo yónnee alxuraanu karim dégg naa si ku naan ma tamit firndeel ma ni que yónnente gi moom moo fi andi kii donc gars yi ñoom demaat ba tegaat encore une nous un doute sur la venue de l'islam donc ñoom fu ñu ko teg tamit ak fu leen dugal ak lu leen dugal seen bopp wal nen expliquer wal nen expliquer comme nous ma koy encore pour noppal yenn nit ñi yenn ni c'est le nulard le cancer le fou le comme vous voulez, qui pose des questions, qui demande et qui dit bon kaay nous ñu wax pour nous bëgg tamit ak ñun nous ñuy nar point barre ap xam-xam wala ma nekk ap duma fi nekk di wax damay Ubi tarixa ni ñëpp gaay Je gënu bëgg tok muy dox di bërëg muy dox maanaam nag xamuñu ay taalibe leen ay dof leen ay seytaane leen wala ay jinneeg dëmmëg what the lu la mën a bégloo moom leen amul problème waaye lu ñuy waxtaane fa yàlla la kay te bëgg na xam ba ngi koy teg fa yàlla ku si am xam-xam tu es la ku si amul xam-xam mooy loolu quoi bu nu fàttali nu lu nu doonoon comme que ñun dem neen ba nangu yooyu noonu yëpp ngeen wax bu leen nu koy fàttali léegi nag sëñ bi daa ñëwoon comme nu ma koy yàgg waxee rek dimbali nu pour nu bàyyi sàcc nu bàyyi fen nu bàyyi jaamu xërëm nu mën a gën a jege suñu yàlla xam ne nuy jaamoo suñu yàlla hein doy lu maandu léegi nag toll nañ jamono joo xam ne sëñ bi moom si boppam maanduwul sëñ bi moom si boppam doyluwul sëñ bi moom si boppam kenn xamatul lu mu gëm lu nekk léegi nag mooy carte gi dëpp na maanaam ñoom ñoo nu wanoon dimbale nu génneenu si ñoom dem leen ba carte gi dëpp ñoom ñoo si nekk ñun léegi dina leen dimbali génnee leen si ñoom est-ce que c'est yéen a ngi comprendre ñun dina leen dimbali génnee leen si que noonu la quoi parce que sañ bi moonu si waloon génne ñun ñoo waloo nekk si yi ñoo waloo nekk si yi sàccantu ñu ñuy dégg si ay affaire laalantooy kii dugg see kii jël ay xaalisu riba daal di lekk ay kii yoo xam ne ni ko mooy loolu ñëwaat toog ñun ñoo si waloo nekk xam nga woy naan sàngara bi tux yàmba kat caga xam nga njaaloo temps en temps wala xam nga njaaloo souvent wala njaaloo sax tous les jours wata xel waaye daal ñun ñoo waloon nekk su bu bon bi ñoom nu naanu kat ah du noonu xam nga nii la way bu leen def noonu toog leen fii jaa leen nii nii ngay amee waaye kat ah doy waar doy waar gars yi dañooy biiral di joxe ay wecc dama nga yàq xale bi reyal xale bi reyal xale bi way ci ci gars yi la ñuy jàpp ak phobie phobie ana ana ana sëñ bu nu jàppoon ba paase ak phobie yi gars yi si wax de duñ si wax de billaahi duñ si wax bu bu bu bu bu Bougazelli bi moo moo moo siw mais Bougazelli dafa génn dem seeti complice am complice am bu amoon Touba moom lañ fi jàpp seeyal ko noppi kookoo ko génnee parce que su ko fekkoon réseau bi daanu bu Bougazelli sëñ bi du nga koo jàpp foog ay foofu mais ah ñoom seen réseau la réseau la est-ce que sax du turandoom wala nu tuddee ko parce que eh, dégg Bougazelli moom turu seen biir la ñoom la seen biir rek seen biir la rek ñoom la ba tey dégg nga kii daa dem defi politique yéen ak si ñoom la rek ba tey même réseau bi la saa waaye danoo jàpp kenn ki tëj mu commencé xam nga di wax xam naa moo rëccale sax ba nu jàpp kii bi sëñ bi nag ba bosom jàllee nag après xam naa gars yi def filation xam nga nu def filation def ki daan ne ëpp kaa bii de daa mel ni ko suñ ko yóbbee day nar ral yow si kaa bu Gazeli bi ki même réseau bi la lii yée xaa nu bàyyi mu sedd koy léegi nag comme que bàyyi neen mu sedd bu Gazeli da koy yëg ah moo taxee gi gisoo bu xew daa génn rek seen copain daa di yuuxu Luc Nicolaï ne leen pas normal grève de la faim grève de la faim bàyyi baal pas normal lu tax qui? kii yéen a toog di nelaw de vous n'avez rien compris les gars ils jouent aux échecs au mat Amoul n'a échec et mat da les jàng jeu échec et mat bis bu comprendre les jeux boobu non. vous allez comprendre beaucoup de parce que jeu vous noonu jeu jeu manipulation là. su ngeen demee ba jàng nu ñuy jouer échec ngeen di comprendre échec tout. yenn jeu yi nii di xew ni wala yenn affaire yi soo da ngay comprendre da ngay ree parce que nous sommes gisoo loolu la ko leen échec et mat nu muy jouer nu ngi la c'est comme ça qu'ils se prennent dans la vie non la ni yenn pion yenn c'est un jeu de d'esprit so demee ba comprendre ko Tu tour tek tour wàccee tour fou roi reine xam nga affaire da ngay dem ba comprendre position tu comprends beaucoup de choses comprends beaucoup de choses gars pendant que tu pion bi pion Tu dan fou bi dafa fou bi sam gars gars lutax mu man ngi <laughs> c' est tout un réseau cocaïne beeg foo biyee kii mooy trafic bi ñoom la rek seen biir ñoom la borom xaalis yi c' est dans eux xamante moo tax sëñ bee claate sëñ bee kii gars yi doonoo kii sëñ bee claate génnee kii na génne keneen ki gars mooy lool donc boog sëñ bi su demee bay foo biyee ah donc sasu màggal yeeg sasu kii yeeg xaalisu tabax yi donc am na ay foo biyee Haalis bang bangsi de hmm. Gaya, wala no xoolaat juma yek bagasi. wal nan wal nan len sangat de wal ma maa Juma de jumaa yi ngeen di ki di wax ni di yuuxu di ki. di dem di tep di yëkkati sa làmmiñ di ki. xaaj bi yëpp alalu sàcc la ki alalu gori jigéen la ilaha illallah musu billahi jam Wah be fi nek rek kaa fi nek me sa làmmiñ yi dindi seen la yi ne peut pas effacer ce qui est déjà passé quoi ce qui est fait est fait mooy lu fi ne voilà léegi nag ngeen yuuxu nak mom ba gën a yuuxu la vérité yuuxu mom ba neub la vérité non mënoo len ko vous êtes trop petit pour ça manam ni que sëñ baangi trafiquer daf ay traficu phobie camion yamba bu nu dàq ji piw trafiquant wu drogue ay talibé len hmm en tout cas keroog ab gor jigen may na oto te mom. day day joxe rek mom ah kay balaa ngeen di yuuxu di yuuxu di saga na wax yi leer de yenn jumaa yek yenn place yek yenn bagage yi ngeen teg ni di yuuxu di wax no sangat de wala xoolaat bu baax alalu sàcc ko taxawal alalu drag ak benn xaafu góor jigéen addiye yi lii la lii addiye yi lii la gars yi dañoo am lu nuy lekk bay kii yéen ñi ñi ñi ngi sonn ndox bi setul nu bëgg leen gëmloo ni que addiye ay milliards milliards yéen yéen come am na wax yoo xam ne ni que nee naa leen nit ak i noppam soo ko dégloo ma gars yaa ngi xiif de gars nu nu joxe joxe joxe addiya bàyyi faa du seen cinq cent mais cent franc mille franc yi yooyu noonu moom moo leen di jox milliards yooyu jàngi woo leen ut leen calculatrice ngeen toog commencé combien de temps da ñaata daayra daayra bu nekk un million sax ki nangam combien de temps leen wala def pour am benn milliard da ngay toog xool gars yi benn milliard boobu nan ñoo koy joxe nit ñu nekk si biir dëkk bi de ay nit ñuy joxe dépense te du chaque jour la nit ñi di joxe donc c'est pas garanti gars yi ñooy wax wax bee fi ne parce que à part addiya yi xel comme sunu paree boo ji ba kii gars yi ñuy jaay sikoor yi tamit su gars yi béyee ba pare gars yi ñuy teg du ñuy jaay donc y encore dootu intérêts ak yeneen bénéfice ah nee naa leen bàyyi faal ku toog gëmloo la ni que xaalisu addiya bi moo fi tabax jumaa wala moo fi tabax hôpital wala moo fi kii wala moo jënd seen oto yu rafet yoo ak seen kër yi kii ni nangam loolu da ngaa bëgg a gëm leneen rek yow yaa baax rek da baax rek da baax rek bëgg a gëm leneen wala kii toog rek mais au fond xam nga ni que mënul c'est faux billahi c'est fo état bi day jàppale état bi day dem sàcc nu dàq ji nu yuuxu nu bëgg mu jël ay millions wala milliards mu maye. à part ça nak les petits délinquants tamit yu nek ci biir la ila faux billets yi de drogue bi de ko mbàkke mbàkke moy réseau bi lu nuy trafic yépp mbàkke lutax tax nu bañ mbàkke am fa dañu tek fa non tek ki buñ ko xamé boobu ba légui mbàkke di tal di tek di ki rek ñom nonu xam ko bëgguñu ko dindi hmm. nan ñooy nek mbàkke di fa bëggee seen doom ak sëti ñoy joggé Touba ak ñom sen dem ba mbàkke defaru ba nice du gaat kii su ki mooy lool Mbàkke mooy réseau bi foofu leen dajale gars yi booy di soog a ñëw di kii nii nangam commencé kii nu dajale leen foofu teg ah tuxum boon bu mettee fa nekk jaay waaw yow loolu ngeen kii de ak fraude tabaay yu fay jaay yëpp ay fraude la jaay cigarette fraude fraude fraude fraude Mbàkke majorité wu duñ fay jaay fraude la na ma gars yi jàpp nen ma porter plainte nan wax dam leen ngeen xool maa ko wax majorité lu ñuy jaay si Mbàkke boutique yi ak table yooyu nga gis gars yi di jaay ay fraude la fraude fraude fraude fayul fayul impôt kenn xamul nu mu duggee si dëkk bi soo fa demee di tux am na yenn tabac yi soo xoolee bu baax amul logo fraude fraude fraude fraude lay jaaree dugg trafic bobu non nak gaay di lijeenti ci biir dëkk bi motax nu yëpp leen dem ba jël Dakar tuddé ko place bi keur señ bi di fa jaay ay fraud, fraud, fraud, fraud, fraud, fraud. fraud keur bañ señ sëriñu fraud en tout cas en tok di wax rek billahi na gaay di tok di wax rek ini ni ni di saga gaay ni di saaga ki di wax ni comme ni ko waxe sen mbëbët ngeen di wax sen tiofel ngeen di wax sen xol ngeen di wax rek mooy loolu non am nga Touba nee naa Touba dama kaarus bir Touba dama si beug wax lu ñaaw Baye gars yi ñoo naan man respecté wu ma maam de Baye Fall gars yi ñoo xamul billahi maam dama ko naw si ay taxawaayam ay doxalinam ba nga xam ni que gis sa yi sax fooy daf may metti déggoo lu ma leen wax de moo tax Touba si biir boppam sax nii di si wax yenn kii nii mais man xam naa ne que Touba ngi toj sabar nii bii kër yee kii nangam néegi seex yooyu noonu kii nangam seen jabar yi ñoo ngi toj bii kër yi. ay soirée privée la ñuy joxe wala ay affaire privée di dafar wa yo ya. mais nak sëriñ ci dañu dem tamit tak ay xalé yu ndaw yu mol yu ki yu bëgg aduna ñëw jox leen wéccit xalé di dund seen dund lolu kay bay, xam nañ ko bu baax gisolen yéen krek, gisoo leen kérok rek boy bas soxna si hein muka mooy non en tant que ki soxna si sax pour mu kaalaw moy lo c'est la comprend da Diallo ni ko nañ ko bàyyi du nga koy rek hein mom jabaram mom en tant que porte parole en tant que ki sa jabar yiwul jabar gaa ngi poos xef ongle yi ba fii kenn xamul daa xeesal kii cheveux naturel moom lépp lu yàlla gi tere bokkaale gi la de kii ak kiy dox na ko ki wonew ah laa ilaha si laa ne ah mais sëñ bi moom sëñ bi bëgg na lu neex de sëñ bi bëgg na lu neex <coughs> xoolal mbaam bureau bi nee na ma nawloo woo kenn fen nga de man sama ndey ak sam laa nawloo ma mère et mon père ñooy samay sëriñ la maam samay samay nawle man nu may nawloo ñaar ñooñu kese la su ko weesoo keneen loo xam foo ko xam na ko diwoo foo xam loo xam na nga ko diwoo gaa yooyu noonu waaye yow gaa yooyu dun maa mën a dun maa mën a defaral dara dun maa mënal dara ñii dun maa mënal dara yow Baay Faal man ñoo ma yem man ak ñoo ma yem danoo wut si àjjana ma wut si àjjana sàq moonu fi andi nu jugee si aadamaak ak awa tooñ nag tax nag nu wala defaru voilà point maak maag moo ma yem de du ñuy dund muy mos nooy may mos nooy muy dugg duus may dugg duus muy gaañu naan aya may gaañu naan aya muy xool fu neex di fa rooj di cappax la bax man tamit may xool fu neex di fa di cappax la bax maag moo ma yem muy maa ngi nii man maa doon sàcc mu wala ma see génne léegi moom tamit ñëw na si sàcc gi lan la ma fële lan lu tax yéen baay da ngeen baax sama yaay ak sam baay ñaar ñooñu ñoom laa nawloo ñooy samay sëriñ ñooy samay wasila ñoom rek ñoo ma yàgg wax wax yoo xam ne da doon yéex waaye dama koy gis comme ni nga koy waxee dañuy wax de Moussa mooy tul wala kii ma jaay dëgër ma dem ma gis ko ñoom rek ñoo fi Moussa def ay affaire wax may gis su weesoo amul keneen sëñ bi mun nee naa ne sëñ bi su xamoon lii ba may njébbalu du Moussa jël ma jébbal tax ba may juddu yàlla su ko laajoon po su ko yàlla laajoon euh, nu nga ti autorisation du ko may autorisation ma juddu. du ko may autorisation parce que xam-xamam matul lui mo lay woné que xam matul rek bi quoi point barre as doomu à la mu am période mu dem man tamit ma am période bu juddu wala dem point barre ma mu am yaay ma am tamit yaay am personne n'est tombé du ciel personne n'est tombé du ciel Nous quoi. maak moom rek a yem voilà maak moom a yem quoi point barre sama ni que nag léegi amaana mu raw ma si yenn kii yoo ki mais ñii nii nag seen maam xanaa seen maam moom moom a raw si utum yàlla utum diine ki ki topp so yoon bi ok amul problème mais ñii nii nii ñii marabu yooyu billaay suñu ñëwee sama daara ma jàngal leen suñu ñëwee sama daara ma jàngal leen billaay ñii maa leen tane ñii déggoo lu ñii ñii toog nii ñii nii nii ah bàyyi daaw daaw daaw ba ren ñoom dig neen ma fi alak lu nekk di wax di ki bàyyi faal ku ma àndala leen gën a foor ku ma àndala leen gën a foor ñii nii nii nii nii ma jàngal leen billahi wallahi ñii mënulu dara saa waay jox leen ma avion ma wër kii nag bàyyi fen ñii lu nu mën mën naa ko de biiral mën naa ko billahi sàcc xaalisu kii nangam mën naa ko tamit de yee jël lu ma moomul mën naa ko wax bu set eh, eh, eh, man lulu lulu mënu lu ma mënul lulu man mën naa ko ñii ba ma mën ko ba mën lu ko raw muy lan commencé doy lu léegi xoolal bëgg sama mboroom bëgg samay am di jaam ñii ma ñii nañ ñëw ma jàngal leen ñii suñuy ñëw nañ ñëw sama daara suñu ñëwee sama daara ma nafaral leen ñii jàngunu sa njàng mokkul ñii maa leen seen maam laay waxal au moins moom mooy mën a ñëw téyel ma sama alio ma nafar xam nga mais ñii ngeen di wax ni di tëb di rey seen bopp yéen xanaa mais ñii samay booy leen samay booy ñii ñii taneew nu ma billaahi taneew nu ma suñu ñëwee ma nafaral leen yéen yéen a fa nekk di expliquer yéen a fa nekk di expliquer de gars yi dem mënuñu dara lu ñuy def lépp mën naa ko tànn xale bu jigéen mën naa tànn xale bu jigéen laajte adiya mën naa laajte adiya tamit waaw roof rocci mën naa ko jaay gudduleeg yooyu noonu nan sa dem waaye yow Baye Fall ah ñaari ñuy wax nii kii nii nangam on peut tous le faire nu ñuy def nii sol xaftaan diree ko raconté de on peut tous le faire nan jox leen ma mbubu bi rek ngeen xool. maay maay toog place am ba toog maay toog place ku ko raw lii nii nii rek toog muy dox ak i joxe ay sas joxe ay diglaay ay ay affaire yooyu ah sama gars yi kenn du ko jàng kenn du ko jàng billaahi kenn du ko jàng kenn du ko jàng ñii déggoolu ma la wax yéen yéen a leen ko jàppal de man de moom sonaluma sama bopp gars yi di siisu nag ñoom ñoo fa nekk di son parce que comme ni ma ko waxee soo fi bàyyiwee sa ndey mu ne weng toog yow sa bopp respecté woo sa ndey yow sa bopp yëkkati woo sa ndey yow sa bopp yow mënoo toog yow jox sa ndey sa bàyyi cër yu nu moom nga bàyyi leen fi ne nogg daal di dem di uti ji ndeyu jàmbur wala baayu jàmbur lu nu waxal sa ndey yaa ko def lu nu waxal sa baay tamit yaa ko def man sama baay juruma rek sàndi ma sama ndey tamit juruma rek sàndi ma voilà au minimum def nen lu ab doomu jullit di def ci doomu jullitam légui le reste à moi de le compléter ils m'ont ouvert la route ils ont ils m'ont ouvert l'esprit ils m'ont montré la route à prendre le reste maintenant c'est à moi de le compléter je ne parle pas me cacher derrière personne pour dem di naan ay affaire de ki ñoñu ñoñu nak ngeen di wax wa ah, balaa sax ngay mën laqatu ci ginaaw nit mu tané la moy bala nga jox nit adiya nga jox ko ko tane do jox adiya kula tané ko xamna ke ni ke meuna la fayal dépense at nga ne dang kay jox adiya wa ne meuna begel fen joxo adiya da nga bégal sa xol da nga dem rek bégal sa xol yofu fans nga def yofu fans la adiya ak leneen dang kay jox ku ko yellool ko xamna ni ke yellool nako soxla nako ko xamna ni ke jeriñ nako mais ni ah bàyyi faal da ngeen di sisu, da ngeen di sisu. NDC su rek di wax waye de degol mo gars di laajte lu ci sunu yoon Di dina len wax sunu yoon moy yoonu islam sunu yoon mo si yoonu islam ba mu deme ba def na nu ñepp nu bokk ben islam bi nu nek nu ñepp si islam la sunu yoon nek ci lepp lo xamne ko mom ci si yoonu islam lañ ko bëgg ki sunu yoon nga ci si julit sa yoon nga ci lolu kay mom amul sax ma dem te wala doxali nu islam mom. taxawayu islam bépp julit amna ci kaddom pa li du waxu vie privée de waxuñu fi waxu vie privée waxuñu fi waxu ki té tamit comme koy sëriñ amul vie privée sëriñ amul vie privée sëriñ nit ñee mom am dé sëriñ nit ñee mom am dé lék nay amé vie privée du ñuy lijjanti di ñuy wax motax nga wala nek exemple ba nit ñi suñu ñëw di wax lu ñu ñëw di gis di gis lu jaar yoon quoi di gis yoon di gis lu rafet nun suy roy yeah moo gaay di ah non lu sunu yoon moy si islam manam si yoonu islam ki nga wote ne yay tetu islam comme imam da nga musa gis imam bu taxaw si kanam di jiite ñëpp won ko gannaaw non du lay xol ñëpp yay nek sa kanam gaay tim la du lay tim du lay xote du nan tek di la deglu waaw waaw ngay tari ngay tari ngay tari so tare tari tari ba gak eh bilal gaganti nga gagat mu gaganti wala keneen si sàppe yi kanam gàggante so gagaté nak mono da nga nan ni so loxo ne ni ba nga japp nga xëcc ko mu ñëw taxaw si kanam nga dem sa gannaaw ko bi tay du so boss sa way jël ko ci mo tax toujours premier sàppe so solo so dara su dara nekkul so bop bul fa taxaw bul fa taxaw gaay du ñuy wax de du ñuy lijeet du ñuy du ñuy xol te du ñuy wax tank sa l'islam léegi c'est ta vie privée mon ta vie privée mais nag vie privée mon koo am que chef religieux quoi parce que Boba, mon nit ñee la moom nit ñee la moom nit ñee si waaw nit ñi ngay chef de village sax du moom bopom, village bien ko moom lu xew village bi n'importe quel heure fois, wala jug lijjanti boppam lijjanti village bi kay yee waxatuma laa nak, une religion qui a des milliards de fanatiques Hein? nga ñëw créer ci sa département si tu prends maintenant des millions de fanatiques ba nga ne ken la du wax ah non ah non ah non ah non non non non non ah non non non ça ne marche pas comme ça on parle on parle mes gars Ce qu'on faire... nag loolu laa di wax diko mbokk taliban yi comme nu ngi koy defee saa su nekk rek gars yi génnee waat seen larus bégal seen xol yi waaw kii ay saaga saaga saaga saaga saaga ma ne leen jërëjëf amin yal na yàlla nangu seeni ñaan yal na yàlla def lu gën si seeni ñaan ne leen ni que ça a été un plaisir comme d'habitude daa di ñëw waxtaan ak am di jàmm yi ak am di saaga yi parce que comme ni ma koy waxee am di saaga yi ñoo lay yokk jom am di saaga yi ñoom ñooy tax chaque jour ngay gën a mën a am doolewu yeewu ñëw jàkkaarloog ñoom wan leen seen sa duufaayu lex xam nga wan leen sa sa jàmm yaram wala tamit euh, ni que le combat ne n'est pas encore

ku ngay saaga yëgalu ko yaramam nga uti leneen ñëw andi teg parce que comme nu ma leen ko waxee rek yéen seen bopp xam nga ni que saaga kenn du ko jàngal xale saaga kenn du ko jàngal xale sax te maa leen gën a ñaaw làmmiñ maa leen gën a vulgaire yu ngeen di def yi daal amul sens léegi nag maanaam man mii nii vulgaire oon doon saaga comme ni ma ko waxee chaque jour ni ñu naan ma bàyyil saaga yi demoon ndeysaan ba di ma tëkkale naa ma ay Assane Diouf ma naa leen du ma Assane Diouf bàyyi leen seen wax yooyu ma kii noonu différemment opposé yàlla ak yaali la mais man maanaam maa dem léegi ba bàyyi leen saaga yi di ñëw di wax ak yéen si posé ki ay affaire andi leen waxu posé ak waxu nit comme ça nu mën a njee as tuuti yeew yi yéen a ngi comprendre xar day weesu taba mbote quoi su bëggee mat tabaski c'est comme tey jii tamit kilifa diine yooyu suñu bëggee respect du ñuy weesu sàcc quoi suñu bëggee mat kilifa mais mënuñu nekk ay sàcc ba pare nekk kilifa ah ah ça ne marche pas comme ça Donc, un moment, faut mettre les points sur les i, les accents sur les e, les apostrophes sur ce qui va avec quoi. Nalen leen sama gay, mënoo leen wax ba ma dugalaatal si waxu saga yu ñak fay ah bo ngeen saga mille années xam nga la la len di yob. vous n'allez rien comprendre parce que au lieu que vous vous concentrez à essayer de comprendre wala jéem waxtan sa wala jéem a lu leer mais lu ngeen walon comprendre ay saga ngeen kër, moo vous n'allez jamais comprendre parce que tey jii nii mille fois solution Tu raconté mille fois solution Tu mille fois solution si kanamam te que tu solution. parce que tu as mu fi as ba tu dégluwul mais tu as ay rek as ko fi andi Do déglu as dégg comprendre lu xew vous vous fatiguez pour nada vous vous fatiguez pour rien

mais voilà la cause y l'ol noonu ce di wote. si en ce moment man léegi suma ma di que dama la mais ki dafa soxor parce que mon me di wax ni que ñewal Sénégal moo ngi Sénégal nu koy ndulli suba guddi guddeeg bëccëg muy joy naan dëkk bi amul yoon dëkk bi jaarul yoon bi dafa léegi ñun nu koy waxal pour mu jéem a génn wala nu koy xeexal c'est la personne moo naa ma waaw ñëwat moom xam na ni ko donc lu muy dund mais pourquoi bëggul génn xeex ko moom si loolu noonu nag muy dund si loolu la ma bëgg woo man pour man ma ñëw yo almost done you need something oh, yeah I'm coming Yeah. I send you to messenger. Hmm? You send to my messenger? Yeah. nag gaay yéen lu ngeen di wax noonu ñun ñoo leen ko gën a xam moo tax tey nu koy xeex ñoo leen gën a xam ni que dëkk bi amul loi dëkk bi amul direction dëkk bi amul respect amul considération maanaam ni ko sunu yaay yi sax ñoo ngi leen di wulli ci mbedd bi Nous, on le sait, ça sort, les images sont là, ils gis. mais yen ngi tok naan nit ñi kay leen te xam ni ko mais man loolu nous mënul comprendre bala ngeen di nan def dara toujours man naan gars di wax di expliquer di tok di ah non fofu nga nek di wax ah kii nii kaay on est jamais prophète chez soi sallallahu alayhi wa sallam ba créé waxam diko ko di andi islam bi gaay yi ñew sonal ko buntu xata ko propre famille propre dekam. dak ko ba pousser ko à l'exil way dem à l'exil fofu la don tok di ko ba mu la fay clair nous nous sommes en exil Di ñuy wax du nuy wax du on est en exil fii leen toog maanaam ni que jamono yi nous nous avons la chance sur le ñuy tok di wax muy yexi on n'a pas besoin de faire des écrits di yobou si ay messages nuy ñew tok wax ak nit ñi direct du nuy wax légui nak wax ki nak dafa tollu fo xam encore une fois ma wax ko mooy ñun citoyens yi ñun population bi ñoo bëgg a kër gi mais bëgguñu koo nettoyer nettoyer bu jaar yoon danoo ñëw rek daa di bëgg maasaale rek fobeere gars yi balewunu gars yi dépoussiérewunu dindiwunu lënd fu nu dara danoo ñëw rek tooyal morceau bi rek teg bëgg fobeere léegi nag si biir fobeere bi mu am nag ñu nuy fompal seen néeg am ñoo xam ne kenn du leen fompal parce que gars yi nee na ni que ñii ñoo jara fompal ñee jarunoo fompal nan la kër gi di setee xaafu kër bu set leen ngay yor parce que si biir kër gi da ngay am ni saal bi set couloir bi du set wala néeg bee tilim ki bàyyi faal donc kër gi setul parce que mbóot bi dugg si néeg bee nee suy rëcc di dox du xàmmee ni kii néegu diw la néegu diw mbéwut bi daal fépp day doxantu su salte bee tamit poussière bi day doxantu feebar tamit su fay dugg xamee ni ko fii moo set kii day doon parce que kër gee salte c'est pas parce que nettoyé nga saal bi ak néegu kilifa bi bàyyi yeneen ki restu kër gi kër gi set na noo kër gi kër gee salte kër gi suy set lépp la ñuy raxas mu set suñuy bàyyi mu tilim nag nu bàyyi mu tilim mais gars yi danoo bëgg léegi ñoom ñëw def nettoyage nandite nu dàq ji Macky Sall saaga Macky Sall ki nguuram ak français yi alors que ni ñoom da noo may complice ay gain copain queuse yu nekk si biir dëkk bi sol yi xaftaan toog si ruq bi saa yi nu defee seen def ba pare gars yi génne leen rombe mais boobu la suñu fa tourné gars yi ne leen ah non non bu ni taxawee sa kanam def écran ah noo taxaw taxawul xool bi bi non nga pire sa yoon nekku si waa kay nee ni xolofee bàyyi avant 60 ans ba léegi c'est les mêmes personnes ñooy rawale nit ñi rawale neen Senghor rawale neen Abdou Diouf rawale neen Ablaye Wade Macky Sall si des pour nu rawale ko ak i seeni i gaayeen nag ak seen i gaayeen ñoom ñëpp Macky balaa moo pare nguur gi soo xefle mu ne murit la Baye Fall mayee fi si ay milliards pour Masalikul mu may waat fi dernier milliards yi piw France ñëw jël si ko yóbbu aca et maintenant nu dem jëli Sonko wala nu dem jëli Idrissa Seck on sait pas qui va le con nu teg ko na gars yi nag toog nag nekkaat encore en nouveau rêve bu nu fàtte ni que dette bi moo ngi waaye presque léegi douze mille milliards de non non gars yaa ngi si beneen rêve tegaat fi beneen connard et li toog on se bat pas nu yàlla jàppal. nu yàlla baal sama gars nekk leen si jàmm yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla. yal na leen eh, musal si seytane yal na yalla wat xel yalna yal na wat boolewaat si barke sayidina Muhammad yal na def lu gën si julit euh ubbi bay sama Senegal way yal na libre yal sama Senegal libre rek lu ci dess mom après nit ñi di siisu xam naa dineen naan ndox léegi su ko défé ma jël ñaari ñetti nit képp kaañ nag bëggal sama xol gëj naa def la kekkantu national quoi bégal sama xol tuuti daal di dem ma xool ñaari ma siw ñaari ma siw laay jël rek bégee waaw benn benn ma siw Omar Diop ma siw kooku moom yàgg ma siw la xol xol bi xol bi cokataan la yor xol bi xol bi comme oowam bi gis nga oo bi su ngeen demee page am ngeen xool nu mu daggee oo bi yu nu mu mel xolom bi noonu la mel quoi xol bu oow bu toll nii la bu oowee day siisu rek day siisu rek mooy gens yi nga xam ne que moom xam naa ne que du ñuy siisoo siisu ba seen bakken yi ba ko bakken yi nii lay def xam nga sooy nga sa kanam bi nga sa paxu bakken ñuy def quoi ay ñuy siisu nee na go back to Africa and say everything you wanna say ma tontu ko ba question I swear oh God you got the time man ni temps nan la def ba temps Covid 19 oblige on a du temps Covid 19 oblige vol oblige on a du temps on a du temps et whisky gars yi duñ la wax lan moo ko rey de lan moo rey Serigne El eh, eh, eh, du gars yi duñ la ko wax de gars duñu leeral dara gars yi duñu leeral naa ba si yenn nee naa na wax gi di dem rek di gën a bëri nee di nga si dégg su ne génne ay xalif yoo xam ne sax ay jàgg leen woon nan si dem rek wax gi ñoo fi nekk ñoom ñooy tëb nii di wax di yuux parce que gëmuñu yàlla danoo surestimer nit mais nen dem nee naa suñu am na su soo xam ne suñu tolle ba si kii nee na woon sax ay yenn ñoo xam ne ay góor jigéen lañu góor jigéen ñi am seen biir moo tax ñoom tey jii nu toll nii di wax te xamnu sax lu xew ñan dem rek affaire yi dinañ ñëw ndank c'est pas le moment instant yi y a trop de écho da am écho bu bari ma aju nu wat ba ci kanam di ngeen gisaat affaire yi ñewaan ndank du len bayyi mo mais écho bi dinañ koy adhéré ba gaay dégg duñ ko def mu nekk affaire brr nee naa borom gaay ni yo oh, yónnee len ma xalé yi bayyi ki bëgg na xalé yi wa dafa non ay pédophile ay pédophile na gars yi dem ba nu lijjanti nee naa la yenn sëteeg yenn doom yi nii taxaw ba wax gi gën a leer rek ba continuer gars yi ñooy bàyyi noppi dinañ bàyyi pédophilie yi ñu doon yónnee xale yu ndaw yi kii di nanga lu leen def lu ñu def xale yi si biir daara yi gars yi waxuñu si de gars yi ñemewuñu see wax de te bëgguñu see wax seen làmmiñ ñu rëy yenn gars yi tamit ñenn yoo am un deux jël xale yi uuf teg seen tànk yi un rek jël xale yi uuf teg seen tànk yi un deux rek tuuf uuf di raaye kii di kii nañ dem rek. rek tout va être clair de petit à petit mais seulement ni ko su yegsee bu kenn xam bu kenn dé bu kenn ki c'est aduna la dé nit a ki noppam l'homme l'homme l'homme est un homme quoi am l'homme yo xam l'homme n'est pas parfait am ñom ku nekk ak say défaut gars yi dina leer dina leer de dem rek eh, eh ma mi mi mi kaylu non, comment qui le je ne sous-estime pas les sérindés. je ne les sous-estime pas c'est en fait il n'y en a pas il y en avait mais il n'y en a plus c'est ça le problème vous n'arrivez pas à faire la différence en fait je ne les sous-estime pas c'est qu'il n'y en a plus pouvez en sous-estimer avant de pouvoir les sous-estimer, il faut en voir. Il n'y en a plus. Entre Serigne maintenant et charlatan aussi, il faut faire la différence. Il y en avait. Mais ils sont partis depuis longtemps et personne n'a pris la relève. Il n'y a plus de Serigne. Il n'y a que des petits charlatans et nous Même, je ne même pas dire des oustas, quoi. Parce que nous sommes oustas, voilà, affaire de qui xam parce qu'ils ont aucun degré mais il n'y a que des petits usurpateurs usurpateurs donc quel sëriñ qu'on parle n'y a pas Il n'y a que des boys comme man des boys comme man qui cherchent les dépenses Ou des grands qui ont raté leur vie qui cherchent une dépense et qui cherchent une belle vie au détriment des autres rek lolo fi am gars yi tojuñu fenn wàcceewuñu ben kaamin jukkiwuñu dara. bàyyi xamuñu dara lu dul nettali histoire nettali histoire nettali histoire gaa yi xamuñu lenn si charte ban xeetu sëriñ la su nekk yow sëriñu histoire sëriñu raconter histoire sëriñu nettali du sëriñu wax fa yàlla sa nettali bi yëpp du fa yàlla ay jaar-jaaru sa maam nga ñuy wax ban façon sëriñ sëriñu sa maam nga kom foog wax ki di xaw a am lu muy taxaw quoi faut pas embrouiller les gens ah dama ah, ah, liggéey ah, ah Omar thank you woyaay yooy naara ngi xas gëléem wuy sama ka alika, alika ali ka ko naala to ali ka ko marsuude ee ali ali komi komi ko ko ko para ko ko ko kala Guinée ko kala Guinée la sili national komi alika hey yo, kangaɗoy ko fuweti he ali yo ali kaka. ka ko bandiraɓe andiraɗi ko fu ko fulani ko min ko Hey yo ali no gele ngi has ɗum waɗi ngi has gele. ali ka ali ka nenamo je suis guinéen Ali man nek suma neke gine yow yow lan nga hey Ali Allah akbar halen sa, parce que amna ñu bari souvent du ñuy saga te ils ont rien compris Serigne Touba bu ngeen di wax di ki Serigne Touba mom lan la Serigne Touba nan la sant parce que lol yag na ka bëgg léral bay leen ngeen dem ngeen di saga bobu ba yag yàgg ngi saaga mën vous c'est parce que vous n'avez rien compris Serigne Touba du bala sant balal la ba ba ba si lal la balal la gay dem ba changé ko nana bari mën na leen ok léegi baari la bari bari la la ba yéen ko yóbbu Mbàkke mbake mbake Mbàkke Mbàkke luy Mbàkke tey Sénégal sunu naroon di léey <laughs> léey lella Ali non Ali toj nga ma gars yi comprendre vous n'avez rien vous mais gars yi di saaga ndreng yéen yéen a wala gën a respecté ndreng yéen yéen yéen Baay Faal yi waloo leen sax fekk fu ñuy saagawee ndreng ngeen di toog di am lu ngeen di expliquer yéen da ngeen wala parce que seen sëriñ ndreng la sëñ bi ndreng la yéen yéen a réew rek ma chaque jour ma wax ne ne yéen yéen yóbbu toujours wax ki muy àgg domaine yoo xam ne parce que vous êtes con et vous ne leen a xam di wax rek bu pa yéen seen xool ngeen di waxee ak seen kii fatar fatar ki fëy fëy di dem waxoo woo xel bu dal su ngeen àndoon sax xel bu dal ma amaane ngeen wax waxu nit Sëriñ nu mu sant lan la fu mu juge ah nalato kuanka respect a kuanka respect quoi ey What the hell? Baay Faal kii moo mën a dul ñëw toog di we wee wee ba gars yi ordonnez mettez des pièces yi daaw mettez les en pièces quoi mettez leen à côté xam nga mettez pièce by pièce xam nga moo gën ngeen bàyyi affaire yi tas ni seen bopp bi y a de désordre vous êtes désordonné dans la tête dee leen jéem a toog ànd ak xel bu dal bàyyi fëy-fëy mettez les pièces bàyyi leen ethnical bi fële bàyyi leen racial bi fële bàyyi leen affaire de religieux bi fële nu wax si Sénégal aha su ngeen laalee si religieux bi nu laal ki ne racial racial la saa waay doon vous parlez de racial da ngay sonal sa bopp il n'y a pas de Sénégalais Sénégalais n'est pas une wolof n'est pas une race encore on retourne dans l'histoire wolof n'est pas une race le Wolof est juste une langue. Wolof n'est pas une race. Après ça, maintenant, il y a les Lebou, les Diola, les Mandeng, les Bambara, les Soninke, les Sarakole. C'est là maintenant qu'on parle maintenant Mais Wolof, c'est quoi Wolof Wolof, quoi Lala Nous avons dit Wolof, Wolof, Wolof, Wolof, ñu vous parlez de la merde vous ne savez même pas fu vous ne savez pas vous ne connaissez rien vous parlez parce que vous ngeen di leen ethnical bi di ngeen sonal Sénégal fa bete bete wu amatul Baye les gars sont mixés mélangés bàyyi leen wax yooyu di ngeen am seen gàccee wax naa leen ko ba sonn parce que su ngeen naree dem ba toll foofu noonu ñiy toog fi yëpp marabouillon yëpp du nooy sénégalais parce que seen maam du sénégalais yee ba ba ba bu saaga ba bu saaga kamara wala nu ko ka ka ka ka buy wax ak kamara naa ko dellul Guinée ka ka ka sa yàgg naa kaaw wax man na leen man su may dem sa nee ngeen Guinée si Sénégal la bokkoon ak Mali lépp man mandeng la woon benn la mais yéen ka ba ba ak ak sama maam yi jàllo jàllo yeeg yeneen kii nangam su ngeen waloon dem da ngeen di fay paas te fu ngeen nar a dem nar naa sori nar naa sori la Niger là la Sahel c'est là-bas c'est de l'autre côté vous vous êtes trompé d'horizon c'est de l'autre côté lii moo tax Guinée sama yenn mbokk yi mënuñu faa am jàmm parce que nee na la dof bul ko ne yaa ko moom xajal ko se gars yi na danoo gaaw a tekki bëy gars yi noo gaaw a tekki gisoo Macky Sall du nga koo xajal rek mu tekki bëyam yi bëy yooyu noonu nag léegi tey ñoo ngi toog bëgg amet léegi bëy ñooy dàqe bëy yi ñooy dàqee léegi bëy yi léegi ñoo laan ku dëkk si dëkk bi ak ku dëkkul si dëkk bi ku bokk si dëkk bi ku bokk te ñoom fàtte nañ ñoom fu nu jóge ça part en couille ay waay yàlla yërëm nu affaire baa ngi ça ça part en catastrophe mon pays est merveilleux je te jure le Sénégal est magnifique foofu rek ngay gis ay exploits yu amul fenn des choses extraordinaires c'est à se tordre le cou c'est à se tordre le cou non mais I love you guys Ali ko biga kangado quoi quoi ko fueti la kangado Right. Ndeye Amindou tu as raison ça part en cacahuète je te jure surtout maa nag les cacahuètes chinois yu saful dara yooyu noonu kan xam ni lan la gars soo waxee léegi de man de maa ngi gis ay kay yuy dàqaate ka kay kay ngi dàqe senegal léegi dàqkat yi ngi dàq Sénégal wala ma tamit Abdul Abdul Abdul xawma jom jomboxoo jomboxoo xawma Abdul Abdul jomboxoo yow yàggoo yàgg boo xam ne Afrique wala yow xamoo constellation Afrique yi wala ki nangam kamara soo déggee kamara dinga xam kamara lan la so xamul kamara lan la en tant que africain hmm. neexoo dimbali de kamara kamara lan amin sama gay sama guys amin why amin alaw Baara Dieng amiin waay oh kii moom du ma sax wax kii turam parce que turoom moom nu mu nu mu mel moo njëkkut a teggi ne quoi amiin yow tamit rek amiin waay ba yaa ngi sedd rek gaay di leen dee billaay wallaahi xam nga xam nga sama copain ji ay sereng la yor man gaay damay jongalaate man damay ay yii laa yor kay jooyee ma ma ma jongalaat gars yi gars yi xoolal dégg ñooñu ngeen di jëlal paar seen ñooñu ngeen di deewal du ñuy ñëw comme que ñooy jaay lonjon ay roof rocc yooyu noonu ba pare di naan avorté la ki yooyu noonu. moom damay teppi rek tar di teppi rek tar di teppi rek bàyyi leen nag ngeen di saaga ngeen di wër wee en tout cas kontaan naa si yéen sama gars yi yéen a ngi woon ak man toute la journée ça a été un plaisir di leen naan nag maa ngi daw nekk leen si jàmm ana leen jàll yàlla suturaal ça a été un bon plaisir aujourd'hui et nu def noonu ba si beneen vidéo ciao bye eh va, gars. les mécontents la andi la larusu saaga yi maa ngi ñëwaat keso, une question yeneen bagage nag Je lu sais pas si xamagoo Je sax maa ngi vous comme que si ni bi ay réponse je vais vous donner de quoi insulter mais si kiiwu vous yi fa ay daara si wax Je yenn sais yu ndaw yi tamit ko pédophile dinaa leen si woon yenn yoo xam ne ni que ñoo ngi ay xaftaan toog foofu chaque jour ngeen toog seen suufu tànk yi di leen mbëkkal léegi nag xanaa nag boobaa nag comme que am na si kenn newoon na ma ah da ngeen di jël avion yooyu ñëpp ngeen wàcc ñëw andi guerre boobaa nag xanaa nag di ngeen taal guerre bi nag ma daal di ko gis wasalaam nekk leen si jàmm.